Anyways.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 wuyoo ci turu asal di ab sëriñu tariq ñu ngi ko doon atte ci tribunal bu ndakaaru moom ak complice am bii di wuyoo ci turu Y ja ci semaine be weesu <laughs> gaa yi dañoo ay sa waay nag li mu doon def mooy da doon xëy dugg ci oto mook chauffeur am di wër agence multiservice yi asal di sëriñu tariq bi mooy wax de nee na buñ dawalaan otom ba ñëw ci benn agence multiservice dafay wàcc oto bi ñëw mel ni kuy def dépôt orange money ci noonu lay profito dañoo xoolaale journal d'appel bu opérateur bi dal di yël code d'envoi bi waay sa waay dëgg la sëriñ bi nag bu amee code d'envoi boobu ci lay sukkandiku di wammi konti jàmbur yi sëriñu tar yàq boobu nag bi mu koy def utiliser wul portable am ab portable bu ñu sàcc la jëloon te portable boobu wàjji ko moom mooy ku ñuy woowee eswilaan maa la ko wax pexe la ñu bari waaye fii loo fi malaaka ñu malarti ko sa nag li mu yuri ci ay konti jàmbur kenn xamul ni ci kanamu yoon nag sëriñu tariyax bi nangu na li ko yoon di tuumal waaye moo gën a gaaw nag waaye soforam bi di wuyoo ci turu Greg Dia te ñu ne mooy complice am nee na yeegul tinul ndax sëriñ bi bu xëyaan rek lim koy wax da doon dem di récupérer xaalisam yi nga xam ne client yi ñoo ko doon envoyé gannaaw bu leen liggéeyalee ba pare waaye xoolal ma wii lay wujub ma ne dëgg-dëgg nag sëriñ bi gore na foofu ndax dëggal ne na soforam wuyoo ci turu dëgg dëggal ne xamul woon li xew tonte greg jadi sofooram bi nee na chaque fois bu sëriñ bi mësaana def retrait daan na ko ci cër maanaam daan na ko ci compal gannaaw ba leen yoon dégloo ñoom ñaar ñëpp nag mujj nañ leen a daan ñaari atu kaso yoo xam ne juróom benn weer yëpp dañu koy tëdd askay ma ne sëriñu tariyax yi nag léegi dañoo bëri Sénégal xam naa moo tax waa ji dem dugg ci wàllum escroquerie moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw naa laa wax la xew ca Médina Rue 39 avenue Blaise Diagne romb na doy waar ab visil buy woo ci turu oobe at yi toll ci ñaar fukkat ak ñaar moo fa violé ab xale bu jigéen boo xam ne ab handicapé la ba mu jaaree fa jële ci ab ëmb ëpp low victime bi nag di ab xale bu jigéen teg ci di ab woylaago am fukki at ak ñett classe cm la doon def vigile bi na xale bi nee na nii la ko naxee sawaay daf ko woo jox ko cent franc ne ko na ko dem jëndil si bu paree yéeg ci étage bi indil koko xale bi ne bi mu jëndee ji bi yéeg ci étage bi indil koko sawaay ci la ko yóbboo ci ab appartement dal di ko fay violé ay waay ba xale bi mujj faa jaaree ëmb moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Linguère tiis na doy war ab lakk gu méttee fa am ci hôpital bi ñu naan Maguette Lo ci service pédiatrie ba juróom benn liir jaare fa ñàkk seen bakkan la ilaha illallah waaw lii moom du muy xew xanaa kenn newu fa lakk gi nag nee nañ li ko sooke mooy courant ba juróom benn liir jaare fa ñàkk seen bakkan moo tax laaj bi nag mooy waaw loolu bi muy am xanaa kenn neewul woon ci lieu yi waaw looloo jaralaaj nag ma ne lu ne day xew ci suñu hôpital yi suñu hôpital yi négligence totale fay am da fay dem ñii toog fee di peñe téléphone ak yu ne ñu nekk ca malade yi sax duñu leen tal moo tax réew mi li fi nekk kenn mënu ko wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz